biir site bi rawatina àddina wërnga këpp bi nga xam ne safoo nañ ko ci résultat yi nga xam ne mu ngi koy def saa su nekk ci ñaan bi jëmale ko ci faj bu si kooku mooy Serigne di Mokhtar Diop tey nag dinañ yaatal ci ponk yu bëri bëri waaye rawatina li di xeexoo jamono mu di actualité sëriñ si di Mokhtar Diop damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan bi laata may ñëw ci sama biir programme bisimilah. waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu ci nuyu nuyu lislaam di nuyu maanaam sa caméraman yi di nuyu mboolem askanu Sénégal bi ñuy seetaan ñëpp di ñaan suñu kàddu yàlla na fekk ci askan wi man cee jariñoo ci liñ ci fas yéene ci site bi yëpp ñu jëriñu ci mboolem Sénégal yi yëpp rek. waaw jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Sidi moxtar Diop jërëjëf ci euh, néew yu am solo yooyu ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane atia tey nag fas yéene ñoo waxtaan ci xam-xam ci lu toll ci juróom-ñaari ponk waaye dinañ ko xaaj ñaari pàcc ci lii ci ñaan suñ fa jógee dinañ dellusiwaat yaatal ci mbiram pàcc bu baax a baax atia xew-xewu jamono du lenn euh, Sadio maane mi ngeen di tit di ragal nee na na seen xel dal dinañ ci yaatal dina joué bu baax. te résultat bu am solo dina ko def ci biir kan bi waaye nag su ngeen bëggee xam ndax Sénégal euh, dina sori ci kan bi dina qualifié wala dina jël coupe bi top leen ko ndax am na révélation yu am solo yu sëriñ bi bëgg a jàllale fii waaye dinañ waxtaan ci euh, lii di président Ousmane Sonko ëllëgam ak ci politique ni mu koy doxale topp leen ko ba mu jeex atia damaa bëggoon ñu dellusiwaat ci liñ naan samp nit loñ ci mën a baaxee waaye laata ñu ñëw foofu euh, gëj nañ laa gis raar bi lan la dégg naa nag tukki woon nga tukki bu am solo peut xam naa ci euh, soxla jaam yàlla ci nga nekkoon di dox ak yaatal gëstu bu baax a baax gën ñoo leeral gëj génn bi lu ko waral. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Cheikh ñu nuyoowaat rek waaw loolu nga ma laaj moom dinaa ci lool ndax euh, génnoon nañ fi xam naa gëj ñoo wax ci sit bi waaye génn gi nag xam naa ne rek dafa am ñu woon ci ñun daal bëggoon ñu liggéeyal leen ñu wutaloon ñu ñu génn réew mi dem fekk leen fañ ne. ñu dem liggéeyal leen wax dëgg yàlla ñu sant yàlla ci loolu bu baax di leen sant ñoom it di leen gërëm di wax ne àdduna moom noonu rek la euh, nit moom fokk bala nga ko xam nga examen ko rek waaw ndax ànd benn bindkat buy wax ne waxta biir man sita taarifuhu mm. fa ma yaarifu rijaala illa min fax nee na ki nga bëgg xam examen ko ba xam kan la natt ko waaw waaye sant nañ yàlla ci ñooñu mm-hmm. euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant gis nañ maanaam seen seen seen seen kóolute ci ñun wax dëgg yàlla am nañ taw feex daal waaw loolu daal moom moo waraloon tamit ñu gën ñoo gis ci site bi waaye ñun ñun loolu rek lañ amoon ci lu ñuy wax ci loolu. acca dañuy ñëw nag euh, yaatal bu baax a baax ñëw ci mbiram samp nit donte kilifa yu bari su leen dalale wala sëriñ dañ ciy waxtaanee ñu ñëw ci ni ngay samp nit. waaw euh, sëñ Cheikh euh, samp nit moom dafa am loo xam ne ni nit ki bala ngay man a samp nit yow day fekk ndax nit day daxaw ne man damay samp nit te fekk yow sax samp woo waaw bala ngay samp nit te fekk yow nga samp boo noppi. te toor fakal ñun wax nañ ko si site bi ci émission bu jàll bi bi jàll nii ñu defoon wax nañ ko ci ñun ñaar fukki at ak juróom mi ngi nii ñuy samp ay nit te yàlla mi bind xam na ne mosuñoo jëflante ak nit te lim bëgg amu ko loolu sant nañ ci yàlla ndax li ñuy def ci xam-xam lañ koy defee nit ñi nag bokkuñu Euh, doomu adama yi ni ñu leen suñu borom bindee bokkuñu ay melo nañu wutee ci ay làkk noonu lañ wutee ci ay melo noonu lañ wutee ci ay jikko suñ liggéey bi ñuy liggéey nag dañ ci jànkoonte ak ay coono yu ne di ci sonn waaye loolu lépp rek ngir fexe ba nit ñi am jàmm rek moo tax waaye nag nekk fépp moom man lépp moom yàlla rek moo ko jogoo waaye nag li nga xam ne yàlla may nañ ko muy xam-xam boo xam ne mu ngi jóge ci suñu borom boobu moom képp kuñ ci fekk si dinañ ci def lépp loo xam ne war nañ ko ca def dañ ko ci def li ci des ñu bàyyi ko ci loxo suñu borom ndax suñu borom moo ne alxaqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin dëgg ci yàlla rek la bàyyi ko waaye nit soo ko wóoloo ba jox ko sa bopp danga koy doy loo waaye sooy xel ñaar rek foofa maanaam la ngay la ngay topp saytaane mën na caa mën na caa laxasu te boobaa la la nga doon jortu rek mën na la caa fekk si loolu nag la ñuy bañ. waaw acca jërëjëf euh, sëriñ Sidi Mokhtar Diop am na solo ci leeral yooyu nga xam ne lépp lu dëxëñoo bokk ci mbiram samp rek euh, mu ngi noonu am nañ ci yaatal yoo xam ne yoo am solo te leer na naañ acca waaye korte ci boppam mooy lan lan mooy korte te lan la mën a def nit ki. waaw sëñ sëñ Cheikh korte mën naa wax ne bëri na ñun ne ci réew mi nii feebar loolu lañ leen def tey fi ñu toll nii xeet yi am ci senegal boo demee ci alpulaar yi. Eh, liñ suñ mbokki pël yi maanaam boo demee ci xam-xam boobu ñoog bambara yi ñoom ñoo ko yore fi ñu ni korte maanaam korte bu dugg ci yaramu doomu adama foo gis mu dugg fa ki ko def maanaam al pël lay doon wala mu doon bambara. yàlla yàlla may na leen ci déedéet du du du xeet yëpp foo dem rek am na ñu baax am na ñu bon waaye xam-xam maanaam ci li leen yàlla may ñoom xam nga xeet bu ne am na la yàlla may loolu yàlla may na leen ci. loolu suñ mbokki pël euh, ferdo yi mooy fuladu yi loolu mën nañ ko ak pël jéeri yi mën nañ loolu mooy wàllu korte bambara yi tamit mën nañ ko waaye bu dee lu jëm ci wàllu boo gisee nit korte dugg ko rek ñaare boo ko toppee foofu la jëm te korte dafa am xeet ñaari xeeti korte seen seex bokkut. dafa am korte boo xamante ne bii nii lu ñuy tural deret la def ko ci def ko ci téere wala ñu def ko ci fas suul ko ci bàmmeelu nit ku faatu. wala ñu sànni ko foo xamante ni bii nii. ci mën la saaru foos. wala ñu sànni ko ci biir foo xamante ni bii nii maanaam ay maanaam foo xamante ni bii di fu lëndëm loolu ñaare mooy waral korte bi nga xamante ni bii nii day dund loolu ñuy wax korte bi dund. loolu day nekk ci maanaam yërëmu nit ki nit ki dara mën na wër ci yaram bi yëpp di law di di di mën la sax di lekk ci yaram bi te boo ko xott woon doo gis dara. fekk liggéey ba ma fay fa ca bàmmeel ba bañ ko def wala ñu ngi ko def ci foos ba wala ñu ngi ko def foo xamante bii nii foofu la àndal mais am na korte boo xamante ne bii nii lu ñuy lu ñuy lu ñuy sànni la. Mm-hmm. lu ñuy liggéey la ba noppi takk ko ci garab wala ñu sànni ko ci dara sànni ko sànni ko mu dem korte mm-hmm. boobu euh, boobu mën nañ ko dindi. waaw boobu mën ko dindi. Mm-hmm. boobu moom ñaare bu la yàlla dimbalee nga dese nga dajeeg sëriñ boo xamante ni bii nii xam am na ci wàllu boobu mën na la ko dindi taf taf waaye yenn saa gis ni comme day am korte mu korte bi ci jëmi korte bi korte bi day nekk ci ci yaram bi lu mot fukki at mu naan faj lu naaf. fekk korte bi dund lañ ko def. am na korte boo xamante ni bii itam boobu la ñuy jox fas boobu la wax dabari suñu mbokki pël dañu ko wax dabari boobu dugub lay àndal buñ ko defee ci dugub bi bu buñ ko joxee fas bi mu lekk ko. kort boobu mooy bi day mel ay sànq lañ mooy nekk sa yaram bi bu wëree sa yaram bi ba sa tànk suuf tànk bi day màtt yéegaat kort boobu itam am na mais kort bu ci nekk am na lu ko tax am am na luñ koy booleel. Mm-hmm. te maanaam euh, bëri na nit ñoo xamante ni bi dañoo dem ba ñàkk yaakaar dem ba tëdd faj lu mat fukki at wala juróom-ñaari at fekk kott yooyu dañ leen def léegi nag nit ki ci jëmmi boppam moo war a jamono ji nit ki ci boppam moo war a aar boppam nit ñi da ñaan da leen a jaralatul yenn yi parce que bu fekkente ne ni yow yaa ngi am kàttan yaa ngi am liggéey fexeel ba def sa yaram blend parce que da gis si benn famille kenn am fa xaalis ci famille boobu kooku nga xam ne am na ci xaalis am na ñoo xamante ni bii nii bu nangu dogalu yàlla kooku mën naa dimbali famille bi yëpp waaye am na ñoo xamante ne nanguwuñu dogalu yàlla boo xam ne bu ñu wax rek loolu lay sukkandiku pour na ñëw wax wax ko ki def na ma li def na ma laa mu liggéey mu jàpp parce que yàlla tamit am na loo xam ne yàlla dafa si daan ndax sayaati nii segam sayaati nii la yàlla may doole estomac Mm, SMA a ñeneen ñi ci ordinaire yi saytaane yi luñ bëgg def yàlla nee na man ma sa eh, dinaa leen jay ak sama dinaa leen jay man ko def. kon te nit ki buy dundu dafa war a protéger bopp ba nga xam ne ni kenn du ko mënal dara te am na ñaan yoo xamante ni bii nii nit ko jëfandikoo ci alxuraan wallahi wal xuraan azim comme bal taxi bu leen ni sànnee dara mu këpp ci kawam te jamono ji jamono sànni kortu la kon nit ñi nañ jur bopp seen bopp te wut kaaraange kaaraange gi nag mooy am na ci xeeti ñaan yoo xam ne bu ñu la ko defalee bii maanaam pour wàllu fay coow la ñaan yooyu boo ko jëfandikoo kenn mënu laa indil coowal buur wala coowal wala coowal noon doo ko am bii ñaan la boo xam day toj liggéey maanaam benn liggéey mënuñ la ko sànni mu dugg la ñaan bii ñaan la boo xamante ni bii pour loo xamante ni sa yaakaar du tas li ngay am mooy des ci yow a investir gis ñun ñu bëri ñu la man du ma am mu dem damay téye ay fan yee rek am na ko ma doon jëflanteel États-Unis mu may wax loolu man man sëñ bi damay téye mën na maa xëy semaine ma am 5 millions mais du man mën ci def dara waaw te mu ne fu ne jaar naa fa ma ne ko da ngaa manqué kaaraange loolu kaaraange moo koy def bu amul kaaraange lu wut lu jóg lu ne dina dana dana dal sa kaw. kon te loolu moom laa amoon ci lu may wax ci côté boobu kon nit ñi nañ protéger seen bopp ba leen da bala leen dara daray daray dal doo xaar ba dara dal la ba noppi parce que am na kort yoo xam bu la duggee benn sëriñ bu taxaw ne mën naa koo dindi si àdduna day wax day wax lu day wax lu ko neex. waaw jërëjëf ci ponk yooyu nga xam ne ci lañ duggoon waxtaan ci corte ak njëriñ la nga xam ne moom mën na ko pour ñaanal nit ki yow ba xaabaabal ci mbiram protection mu di kaaraange acca euh, ëllëg dina ci yaatal duma ma fi del siwaatee li wutale corte ak lii di nawtal acca waaye ubbeeku bisimilah ñu ñëw ci ni ngay jëflante gaa yi ci ubbeeku. kër waaw parce que tamit tamit dinaa bëgg naa tamit jàllale foofu benn message ci wàllu ubbeeku gis nga nit ñi bokkuñu dañoo wuute ay bid ay comme ni ma ko waxoon ci njëlbeenu vidéo bi rek nit ñi dañoo am ay wuute dañoo wuute lu bari parce que ñaan yàlla ci alxuraan am nay secret waaye nit ki dana am foo xam ne bu fa tolloo mbiram maanaam pour mu nit ñaanoo ko day jafe ndax fi ne nii ñaan bu ñu la ko bindalee ba noppi boo bëggee xam ñaani yi baax na wala baaxut bu dee da yor soxna ndax nit ku bëgg dara foog nga def dara boo xëyoon tëdd sa néeg bi ba suba ba ngoon ne damay damaa bëgg am am nga tëj sa tëdd ci sa néeg bi génnoo sa néeg bi yàlla du la jox am na loo xam ne boo demoon ci docteur ba feebar docteur bi xool la ba noppi danañ la bu lay faj danañ la bàyyi lii bàyyi lii bàyyi lii. du question ne la mu lay bàyyi loolu daa daa bañ daa daa bañ daa bañ nga lekk ko waaye pour sa wér yaram moo tax waaye am na ñaan yoo xam ne am na lu muy bañ sobe baaxut sa jabar ji nga xam ne dalaa lew sax waroo def chaque jour ngay ngay am lante ak moom ñu la joxee ñaanu ubbiku wala ñu jox la ñaanu kaaraange jamono ya nga koy jëfandikoo bu laal sobe donte yow sa soxna lew na la boo jógee man nga sangoo na nga xaar ba ñaani jeex ba nga jëfandikoo ko ba sa yaram fendi ba ñaan bi dugg la nga soog a demaat si soxna moo xam ñaan ak juróom-ñaari fan ngay sangoo moo xam ñaan fukki fan ak ngay sangoo moo xam ñaan ak ñetti fan ngay sangoo jamono yu ngay laal alxuraan ndax alxuraan tamit euh, ku koy ku koy sangoo booy ma yàlla du la jariñ alxuraan mm-hmm. lenn saa nga nit wax la léegi na la ñaanal ma nga ñaanal ko léegi mu wala dans vingt-quatre heures na sëñ bi li ma ñaanal gis naa ko fekk loolu du ci de sëñ bi sam na cee bañ doon dara waaye ci nit ki lay doon nit da ngay set ndax la inna allaha yuhibbu tayyib yàlla dafa bëgg lu sell nit ki day day raxas xolam ba mu set wecc raxas saahiram ba mu set wecc ak baatinam taxaw nag bu ñu la joxee ñaan nga jëfandikoo ko wallaahi am ñoo xam ne boo leen ñaanal day mel ne naanal ndox parce que dañoo set waaye nag mënoo nekk ci sobe mënoon noo am sa yaram mënul am sobe ba noppi ngay jëfandikoo alxuraan mënul nekk. sunguf nag mën na koo nangu waaye alxuraan nanguwul loolu man nag ci tur yàlla laay ñaan ak alxuraan sama lépp ci loolu laa ko teg du ma ñaan lenn ci lu xam-xam bu ma ko laal li may ñaan daal mooy alxuraan mën nas na cee def nag ay bayra yoo xamante ni bii bu ko nit sangoo ba noppi toog selal yaramam ba noppi toog xaar ba a yàkkamti wallahi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ubbi ko googu dina ko gaar loolu boo ci bëggee fal sax président wala nga bëgg cee fal ministre sax man nga ko cee fal waaye nag barkeb ñaan moo amatut parce que barke bi li waral mooy nit ñi tey mën nañ la woo tey wax la wax ju neex suba ñu weddi waat la ñaareel ba mooy nit ñi mën nga leen a jox ñaan bu ñu topp ñaan yi ba mu jeex bu ñu jëfandikoo ñaan ci bis bi ñuy jëfandikoo ñaan yi balaa am ñaar fan bu ñu gisee beneen sëriñ dem laalaat ñaanam yooyu yëpp am na rawxaan tamit am na rawaan maanaam nit di nga di nga di nga di nga ko booleeg di ko jox ñaan boole kook rawaan mu war a génn sarax génnewul sarax ñaan ba lu mu ci bëgg du ko ci am day tàgg téem bi ndax dañuy wax ne jox naa sëriñ bi sàngam mu lekk sama xaalis li ma ñaan gisuma ci dara fekk sëriñ bi moom jël na xaalis bi mais rawaan bi dundul te rawxaan bi dafa war dund Hmm. waaw xaatim yi nga gis yëpp ak kii yi gis yëpp lépp dafa am rawxaan léegi nag bu fekkee da nga ko defal ñaan ba noppi te génneloo sa raxu rawxaan bi day gedd kooku buy jëfandikoo day mel ne am ndox dong lay jëfandikoo waaye yor nañ ay xam-xam ubbikaay yoo xam ne yu ànd ak kaaraanga yoo xam ne bu ko lay jëfandikoo ci àddina kenn mënu koo xeex bu dee wërsëg la tamit kenn mënu koo xañ wërsëgam wa in sa wa in na bu mën a gi ak muñ gi moo fi amatut konte nag ñun li ñu yor li ma waxoon ca video bi rek neexaluñ ci kenn képp koo xamante ni bi bëgg nga soo ñëwee ñu jëflante ndax li may liggéey dama cee sonn te ba ma koy jàng dama cee sonn te bañ mi koy dugal sama bopp dama cee sonn kon it bu ma koy joxee du ma ko joxe ci lu yomb ndax kenn nit bu ma woowee ma am ci moom une semaine dugal ko xalwa une semaine am na koo xamante ne bii nii fan yee dama jëflanteeg moom bi ma déggee vidéo bu dégg bu ma ma seetaanee dina xam li may wax ma jëflanteeg moom fekk li ñu naan euh, télé góor moo ko dal mu jóge France ba Sénégal seet si ma ma jëflanteeg moom yàlla dugal na saafara li ma li nga xamante ni bii nii moom la doon wut mu saafara wu yàlla xam na ne may na ma xaalis boo xam ne bu ma ko téye damaa yaakaar ne kii dafa juum te moom mu rafet moom it xam naa ne nit ku sell loolu moo am solo mu boole mag ay nit ñoo xamante ni ñoo ñoo ma jëndal bi ma génn fii nii kon te loolu sant yàlla la waaye ñun li ñuy sampee nit ci xalwatu ku ñu ko sampee ñaanal la wallahi asim bu ñu ko defalee balaa at mi des di nga ko gis te am kaaraange di am mucc jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Sidi Mokhtar jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yi aca comme sànq ni nga ko waxee jàppal ne ndaw ñi mënatuñoo li ci ëpp ci ndaw ñi la mënatuñoo xaar mënatuñoo nekk loo xam ne day yàgg kon nag dee leen koy xamee noonu bu baax a baax aca pour ñi nga xam ne soxla nañ kii di Serigne moxtar Mokhtar euh, du naqaree jot ndax numéro yi ñu ngi doon affiche suufu barre d'écran bi yow contacté ko rek dina jëflanteek yow ba soxal sedd guy aca waaye dama ñëw ci mbiram xalwatu tey xalwatu Serigne sa nga koy waxtaane est-ce que niñ koy waxee mëne nañ ko noonu xalwatu yombul de. waaw xam nga xalwatu euh, dafa bëri ay façon mais bokkut parce que xalwatu dafa metti ndax xalwa yi dañoo bëri dañoo bëri te façon dafa am xalwatu am riyaada am na xalwa boo xam ne boo ko defee mën nga génn maanaam guddi ba guddi ngay génn waaye mën nga lekk ci nit ñi li ñuy lekk moobu boobu da ngay woor rek waaye mën nga génn sa guddi nga génn doxantu boobu la ñuy wax riyaada am na xalwa boo xamante ni bii nii boo koy def doo lekk luñ togg dara doo ko lekk mën ngay lekk ndox mën ngay naan ndox di jëfandikoo di woor ba ngoon waaye doo lekk loo xam te ni dafa aju ci jën wala yàpp wala leneen am na ci xalwa boo xam ne bii nii mën na nekk benn fan wala nekk ñetti fan waaye boobu doo lekk am na ci xalwa boo xam ne doo lekk ñetti fan yëpp doo ko lekk voilà léegi nag loolu nag ñun waxoon nañ fi fan yéene am na benn ndomb boo xam ne moom lay àndal secret boobu ñu bari ñu ngi koy laaj yàlla xam ne ne bi ñu defee vidéo bi ñi ñu ñu ngi jégalu tamit Sénégal yenn Sénégalais yi nga xamante bi nii dañ doon fipp ndeysaan di bëgg ñu ñu liggéey lañ ko te waxoon nañ leen ko si vidéo bi neen lañ ne leen ñetti nit kese lañ ciy jël ci weer bi parce que boobu fukki fan ak juróom lañ koy liggéey boobu ndomb googu day ànd ak juróom-ñaari gaw ànd ak juróom-ñaari tiire juróom-ñaari gaw lay doon day ànd ak sangatu ubbiku ku ko am fii Sénégal maa la ko jox kooku la ñuy wax wàllu mag am naa nag ku ma gis muy wax naan wàllu mag waaye man lii ke ma ko jox am na téeméer ak ñeent bokkul wute am na te nag waxuma ma xalwata kenn dugalul la xalwa man du ma def loolu ma woowee nee naa leen bu ma xasee ba jël ñetti nit ñi may jël sama portable dama koy maanaam keneen ku ma woowaat ba ma toog dugaluma ko wala ma naan ko nangam nangam déedéet wax naa ko Sénégal yi am na ñu may woo ñu bëri nag naan ma sëñ bi dimbali ma dimbali ma dimbali ma wax naa leen ko man samay kàddu samay wax du neex man dëgg rek ci lay ànd ak nit su ma xasee ba jël li may jël ba noppi jël naa ko. jël naa ko su du ci du ma ma du ma ci du ma ci keneen ku ma woowaat tamit rek su sa wërsëg nekkee même seet gi may seet nii trente personnes laay jël trente personnes yooyu su ma leen jëlee juróom juróom-ñaari fan yi ci laa leen di xoolal keneen ku ma woowaat naan ma sëñ bi xoolal ma dama ne ah man baare naa

kenn mënu la xeex am nga kaaraange goo xamante ni parce que kaaraange parce am benn waay bu ma wax barki démb mu ne ma sëñ bi man bu dee xaalis am naa ko mais li ma bëgg mooy kaaraange parce damaa gis samay morom yi mu doon liggéeyandoo fii ci Amérique may liggéeyandoo ak ñoom ñu am xaas comme man waaye fan mujjët baaxul ñii ñi ngi feebar ñi ñi dem nañ bi amatuñ dara lu ñor li ko waral mooy ñoom boo leen mosaan wax dem leen ñaan lu ñu naan ax ah la yàlla kese la la waaje la yonent bi waxoon waaje bi mu bàyyee gëlëm gi ci mbedd mi ah la ju gàtt waaye mën na si na la yàlla lañ yaakaar waaye ni bii nii ci ay nit ak i jinne yoo xam ne yu bon la suñu bopp te protéger boobu suñ borom protéger suñ bopp da ngay dem ci ku yor ismulaay azam mu sampale téel la say tànk ba nga xam ne dara du la dara loolu nag doomu aadama yi moom la waaye da am xaalis yaakaar na kenn laal te fekk laal nañ la bu yàgg bis ngay xëy na nekk doo xam lu laal te loolu yàlla nañ ci yàlla musal ñu bëri fi xaalis xanaa xamoon ne sëñ Cheikh nit di am xaalis nii rek sax te te te te xaalis bi xamul fu mu koy def sax loolu sa liggéey la loolu dañ koy def ci nit loolu noonu nit loxo bu bënn loolu dañ koy liggéeyal nit am na nit ñoo xam ne dañ leen liggéey yoo xam ne lu ñu am duñ ko jariñoo mën nañoo loo ñu dund si àdduna ba bàmmeel dikk leen bañ xëy dee nga xam ne buñ ëllëgee seen njaboot sax duñ am lu ñu loo xam te dañ ne seen bàyyi li ñu moo leen ko bàyyeel wala lii ñoom ñoo ko moom loolu duñ ko def loolu yàlla ci te loolu li ko waral mooy ñàkk ñaan moo koy waral day gis ku mën métier am xam-xam lool ñàkk am mooy sàggan te saggan baaxut waaw kon gars yi bu ñuy sàggan nañuy moytu te dee leen di baaxee gars yi saa su nekk ci ñaan dee leen di ñaan lu am na solo waaye si ni mbokk Modou Modou ni ma ko waxee saa su dinaa ko xel di baam baamtu di ci insister euh, seen xaalis niñ ko amee dafa métti lu ne dañ koy daj ku leen di ñaanal rek dee leen di gën a jàppale leen bu baax a baax ku ci encaissé xaalisu Modou Modou daal day leen di jàppale ndax doon lu am solo ñoom lu ne dañ koy daj. acca fa may euh, dellusiwaat bokk na ci nit koo xam ne wala mën naa ne koo xam ne dañ koo liggéey waaye duñ fa jógee bëgg naa ñu dellusiwaat ku bëgg am sax ci place ñaar yooyu ñu dëxëñ boole ko. waaw euh, xam nga euh, sax ci place moom yàlla dafa wax na si alxuraan am na ñoo xamante ni bii nii ca xun bañ génnee ci dëkk ba. nekkoon juróom-ñaar ñi ne juróom-ñeent lañ ba ñu génne ca dëkk ba dem ca wu ne yéen bëgg xam yàlla suñu borom suñu borom na leen foofu ñetti téeméer atalu topp xam nga li may wax ba pare suñu ba. keroog ba ñu demee ci ba waa dëkk ba ñu leen xoolee ne ñii de suñuy maam lañ yoo xamante ni bii nii génnoon nañ bu yàgg ñu yor xaalis bi ñu yoroon ak seenu melo ñoom bi ñu xoolee loolu waat maanaam weesu na ñetti siècle ñooñu am nañ ay tur am na loo xam ne boo ko liggéeyee. ba boole koog ñoom seen tur yooyu noonu maanaam place boo nekk yow yaay dem bam neex la nga bàyyi waaye kenn mënu la faa jëlee képp ku la fa bëgg képp ku ku la fa bëgg a jëlee moom moo fay jóge am na koo xam day day fekk garab gu garab gu nekk ci diggu pénc mi mu ne da koy gor waaye bis bu bu goree garab googu bakkanam dem dem day faatu. bis bu taxawee na day gor garab googu bakkanam maanaam du dundaal 24 heures su faatu na. waaw saa yoo xulóog nit wala nga jéem a xeex ak ci baatin yow ci fan yooyu dinga xam ne yow ki nga laal du nitu neen loolu nag am na euh, maandu nag ci jaami yàlla yi am na ndax euh, suñ borom na ne wattaqullaha wa aslihu zaata baynakum ragal leen yàlla ci biir ci seen diggante nit ñi waaye nag bul def kenn lu bon waaye nag nit yaa ngi ci àddina ba nga liggéey ba nga jaamu yàlla ba nekk ci àddina nekkin boo xamante ni nii di nga dund sa dund sa teeg bakkante kenn du la gàllankoor fexeel beneen de sa bopp boo beneen de sa bopp nag képp ko dal sa kaw nag nga xam ne moom moo ko teg boppam ndax yàlla nag maanu na ci ci wet googu. waaw am na ñu bëri ñuy coow fii ci réew mi naan diw dafa am lu mu takk diw dafa am lu mu naan kenn lu ko dara fekk dafa am fu mu wéeru rek gis nga ku am wéeruwaay kenn la ba max waaye nag ci biir wéeruwaay yooyu ci ñaani ñaani bokkut parce que am na nit ñoo xamante ni fii si sëriñ si dañuy dégg ay dañ dañuy dañuy li li li liñ mën a ñaanalee nit bari na ci alxuraan waaye nag dafa am secret secret nag mooy loo xam ne boo jëloon sa walis wii nga dem ba ci talibee nga ubbi ko te yaakaar ne mbóot mu ci génn bu ne da ngay dee. loolu mooy secret lu ñuy nëbb la te secret mën nga ko romb te doo ko xam waaye am na loo xam ne bu ñu ko liggéey ci alquran ci loolu ma la wax ci ci asxaabul kahfi googu ma la wax nit ki maake siina fiiha abada lay doon day sax foofu ci barab barab bu faw ba illaa maa saa rabbuka ba neex yàlla suñu borom loola nag mu ngi fi te am na fi képp ku fi ñëw nag ñu jëflante ñu jëflante ci ak yow bu soobee yàlla bu ñu ci jëflante ak yow bu soobee yàlla bis boo toogee ba nga xamante ni place boobu jëlee nañ la fa wala yow dellu nga gannaaw woo nañu di la wàll sa xaalis. loolu ñeme nañ ko. jërëjëf acca kooku mooy Serigne Sidi Mokhtar Diop acca loolu lañ amoon fa ñu ah waaw acca kon ñëwal ci liggéey bi. waa li nga li nga wax sànq ci liy toj toj liggéey bi waaw liy toj liggéey bari na waaye man li may toj liggéey ci falaxee naas laa koy liggéey ak paftan paftan laa koy liggéey ak falaxee falaxi ak naasi waaw ci poftoon laa koy liggéeyee su ma ko liggéeyee maa ngi koy liggéey dibéer dibéer laa koy liggéey su ma ko liggéeyee nit ki jëfandikoo ko liggéey bu ma a fekk ci yaram ah liggéey bu mas a fekk yaramam da koy da koy da koy def comme mi ngi mel ne daa sotti ndox mu wàcc suuf léppay wàcc te ku ko mas a liggéey mu këpp ci kawam loolu des koy def am na ci loo xam ne nag gàllaaj la téere bu ñu lay jox la dañuy jox sa tur waajur ak sa tur waajur bu jigéen ay secret yu ñu jël ci alxuraan ak secret yu ñu jël yoo xam ne secret baatin la moom la ñu jël ko def ko ci ko ci téere bu fekkee liggéey bi dañ ko sànni ci ndox wala ñu naatal ko ci picc wala ñu def ko ci ci ko mën a def wala ñu suul ko boo takkee gàllaaj bii liggéey boobu day këpp ci kaw ko def téere yooyu mi ngi fi waaw kay yooyu dañ koy def waaw kay. acca kontaan nañ kook mooy Serigne siidi Mokhtar Diop jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu ci diggante ñaan bi nga xam ne euh, ak paj ci lañ doon yaatal acca damay ñëw ci xew-xewu jamono mu di actualité niñ ko waxee saa su nekk euh, lan nga ñu mën a wax ci Sadio Mané moom ci boppam ndax fi mu ne nii moom xel yi dalatuñ looñ mën a wax ci moom ak euh, coupe du monde bi nga xam ne dëgmal nañ ko. waaw coupe du monde moom li ma ciy wax rek mooy dama ciy wax ju gàtt rek. ndax euh, euh, euh, coupe de monde bi Sénégal mën nañ ci sori mën nañ ci sori torop. ci sori maanaam. jamono yi ñuy qualifié bi ñuy qualifié ci Égypte gisoon naa ne Sénégal mën na football ba ba demi final wala final. bu fàtte si ne waa ji dafa blessé nag. waaw Sadio Mané blessé na nag mais dina ñëwaat bokk ci groupe bi. dina ñëw dina bokk ci groupe bi te dina def jaloore moom Sadio Mané loolu na Sénégal yëpp xaar waaw. Sadio Mané. li nga wax ne dalal xel la wala. waaw loolu xam nga Sadio Mané boo gisee am na gis nga nit looy mën a liggéey ci àddina donte liggéey boobu sax dina du ko sib boo nekkee nit ku baax yàlla dalay may ndam Sadio Mané nag gis gis nga li nekk ci bopp bi rëdd woo mu rëdd ci bopp bi def naa ne bi muy doog a tàmbali fu ba fi muy ba fi mu nekk nii rëdd woo mosu koo changé watoom boobu muy watu waaw Sadio Mané am na secret secret bi mu ngi ci bopp bi. Sadio Mané hmm, li fekk mi ngi nekk ci équipe nationale Sénégal hmm. Sénégal day jëm kaw rek waaye du wàcc dina fu footballam bu footballee dina def jaloore ah, loolu moom maa leen ko wax hmm. na ko Sénégal ay xaar ci coupe du monde. di xaar ci coupe bi senegal dina qualifier final wala dina jël coupe du monde bi. lii rek damay wax rek sama diggante ak yàlla rek xaw ma yëf yi dina soppeeku xaw ma du soppeeku ndax yàlla rek moo xam yàlla moo xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla da ko waxoon ne. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر واذكر اسم ربك إذا نشيت واذكر ربك إذا نشيت loolu ko yàlla waxoon. bi Sénégal di football ak Égypte def naa benn vidéo réew mi info ma ne senegal de wax nañ ne man naa gagné Égypte ba noppi te du dem te du dem te du dem coupe du monde ñu ne waa dañ na bu Égypte dugalee yaakaar naa Sénégal moo gagné match boobu waaye dañu demaat série penalty am na benn kilifa bu ma woo ca guddi googu Sénégal dóori Égypte lañ ma wan Sénégal di football final coupe du monde. Hmm? ñu ngi ma ko wane seel yi wallaahi wa rabbul kaaba. yooyu lañ la jamono yooyu lañ ma ko wane. waaye nag yàlla mën na wax waa ba noppi mën a déet ndax sax waxtu si muy football muy football final wala maanaam daal xaw ma demi final xaw ma final waaye final daal yaakaar na Sénégal football na ko bi may bi ma koy wan boobu jamono yooyu. waaye nag am na sarax yoo xam ne équipe nationale bu ñu ko defee te na nag bi Sénégal ko def. ban sarax la sarax bi mooy la. sarax bi jën képp la ndax nan jën yi comme jën wi weex tal la waaw ku si man na nga jënd ñaari jën nga saraxo ko kase jën yu weex tal waxuma jën yu yabay de jën yu weex tal waaw jën yu rafet yu weex yooyu bu saa bu ñu sénégalais yi football nañ génn nañ nañ équipe nationale bi cadre yi wala yooyu nañ ko génne bu ñu ko mënee génne ñu génne ko waaw sii Sidi moom sëñ Sidi moom euh, saraxu sëñ sëñ Seydi Muxtaar moom saraxu jën la joxe lu ci waay mën nag saa bu ñu amee mats fexe leen ba na ngeen jënd seen i jën di saraxe gars yi dóor seen ceeb yu neex ñu sant ndaw ak ñu sant jàllo mu ngoog acca waaye foo may jeexale ba léegi des na ci euh, kuje langue politique bi su ma ko waxee sama xel dina daj kii di président Ousmane Sonko lan kañ ci mën a baaxee politique am fi mu ne ni doy na waar Sonko moom li ma gis si moom mooy Sonko na dal rek Sonko na dal gis nga yàlla suñ borom bu namee ci yow dara ba da ngay dugg bàmmeel danga koy am gis nga waxoon naa fi ci vidéo bi jàll ne gis nga président eh, bis bi muy judd sax bis boobu góor du ci judd loolu yàlla képp ku doon na a doon président yàlla moo koy programmé Macky Sall mi boo arriéré at ak ñaar fukki at ku guddi naka Macky Sall di nga doon président de la République du Sénégal mu ne la waxu dëgg xaaru ko woon sax waaye nag li dangay ngay sabablu waaye Sonko li ma koy li coow li muy yëkkati maanaam communication yi muy def. xawma ma si jublu waaye su doon su doon man la euh, mu wàññi ko. est-ce que politique it làmboo lool wala. làmboo na lool waaye gis nga nit am na foo ne ba fa tolloo ñu tuumaal la da ngay dal bul indi wax Sonko nag su bokkee 2024 ah am na sens pour jël réew mi waaye man gisuma ñu tëj Sonko de waaye Sonko boo waytuwul 2024 duñ ko ci boole. gisuma ñu boole ko 2024. ñu tëj ko waaye gisuma ñu tëj ko de waaye gisuma mu bokk ci. bu élection yi di ñëw waaw sama gis-gis rek laay wax man nag waxuma man su ma waxee bu ma nit saagee baax na bu ma nit ŋàññee baax na aha bu ma nit ŋàññee baax na man li may wax nii waxuma ko ngir lu neex Sonko waxuma ko ngir lu neex Macky Sall damay wax rek sama aqulay taala jërëjëf ñu bala nga tàgg laay xam Sonko dañ ko kale waaye suñ ko kale wutoon mu jël réew mi waaye dañ koy kale waaw du jàll loolu man gis naa loolu nañu yaatalaat la jërëjëf ñu bala nga tàggatoo. waaw li may tàggatoo rek mooy wax naa fi def naa lu xaw a yaatu li may fi wax lépp nag lu ci lu ci jub rek ci mat ak suñu borom la waaye lépp lu ci dëng bëgg ma ko woon noonu ñu baal ma ko ndax wax yombut waaye li nekk sama xol muy yéenu ju sell ba bugg ko teg ci loxoy Sénégalais yi rek mooy ku ma gis rek sa aajo faju loolu laa ñaan yàlla loolu rek laa ñaan yàlla waxuma ñaa jëflante ak doomu aadama ci wàllu ñaan waaye ku ma gis sax sa aju faju loolu rek laay ñaan yàlla suñu borom te loolu yaakaar naa ku ko ko ñaan suñu borom yaakaar naa ne loolu boo ko ko teg leneen nag lu ci mën a des rek nañ ko bàyyi si loxo yàlla ndax yàlla moo ne fa lillaahi izzatu wa li rasuuli wa moom mu'miniin tedda moom yàlla rek moo ko moom ak jullit ñi gëm yàlla ak yorant bi ak ñi ak ñi ko topp kon te Sonko moom na dar rek waaw na dar rek waaw incha allah